Euh, nga bëgg jël lépp rek kale euh, ko ci ci ci ci monde culturel bi euh, nit ñoom duñu liggéey parce que ñun liggéey rek la am ni ko ñëpp di defee mun nañ ko defee noonu ñaanuñu defuñu dara dañ waruñu di ñaan defuñu dara liggéey moom moo ñuy fay dañuy ñaan ñu bàyyi ñu ñu eggal suñu liggéey respecté conditions yi ñu ci yëpp yu ñu ci joxe pour Covid bi ñu liggéey suñu liggéey ci jàmm.